mbokk yi ñuy bàyyi xel ci sans limite ñu ngi leen di nuyu bu baax am mbégte ànd ak comme ni ñu ko defee ci radar dimanche bu jot di ci ànd ak Pape Moussa Sow juriste ñu fas yéene taxaw moom ci actualité yi nga xam ne moo nekk suñu kanam ngeen xam ko investiture euh, discours am bu njëkk 3 avril ba ci li nga xamante ne moom mooy 4 avril euh, prise d'arme lay doon euh, bile yoon yooyu yëpp incha allah dinañ ci taxaw boole kook leneen ngeen xam ko di décret yi nga xam te ne jamono ji mu ngi jur coow. bàyyeekoo ci njiitum réew mi di le président Macky di continuer di tabb ñenn ñi am ay coppite yoo xam te ne mu ngi koy indi ba am sax ñoo xam te ne ñu ngi koy ñaawlu jamono ji lan moo nekk ci ginnaaw loole formation gouvernement euh, bu ñuy xaar tamit bu Bassirou Diomaye Diakhar Faye fan la ñuy def président Euh, Ousmane Sonko loolu yëpp incha allah du ñàkk euh, dinañ ci taxaw ak euh, Pape mussa Sow boole ko également ak ëllëgu Amadou Ba jamono ji gis ngeen coow li ci biir parti bi ñu bëri ñu ngay tiire président Macky Sall bi ñu jàpp ni moom si boppam moo amee taxawaay boo xamante ni moo waral tey ñu ñàkk nguur gi ki ci gën a fës te di ko wax jamono ji te ngeen gis ni sax woowoon nañ ko ca cong di Oumar Sow ah euh, ñuy wax ni digganteem ak euh, kii di Ousmane Yara la te bu ñu nee Ousmane Yara xam ngeen ni fii la ñu jibaloon euh, turam ne nañ ko bàyyee xel ndax am na rôle bu mu joué ci diggante Ousmane Sonko ak président Euh, euh, Macky Sall ba defoon nañu sax ab jotaay bu ñu dalaloon kenn ci ku ko jege Ousmane Yàlla nag jamono ji jege na bu baax Pape Moussa Sow <laughs> mu saa waxee noonu Pape Moussa maa ngi lay nuyu bu baax. maa ngi lay fay am mbégte bu yaa ànd yow ci jotaay bi bàyyi la ñu. le plaisir est partagé Papa Ousmane mm-hmm. Cissé. Euh, di la nuyu bu baax a baax a baax. Mm-hmm. di la jàllale nuyoo tamit. sénégalais yu bari. Mm-hmm. d'ici et de la diaspora. Ah waaw bu di la nuyoo di rafet rafetlu sa liggéey. Ah, waaw donte waa boor bee dugal nañ la ci. ci benn vidéo nee naa leen ci keccet ba mu set ok waaye. ah yaa ngi wax sax. nañ ci keccet ba mu set. ñeneen ñi ñu bàyyi leen donc euh, di nuyu sénégalais yi. fépp fu ñu mënti nekk ci réew mi ak ci bitim réew. Euh, di ñaan yàlla rek lépp lu ñu fi waxtaanee doon njëriñ ci askan wi asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah jot naa tamit nuyoo sa benn ndijaay <laughs> depuis Allemagne. Alioune Niang Alexandre <laughs> moom ku ku ku ku yàgg Allemagne la nag. Euh, nekkoon candidat ah. waaye après mu jékki-jékki affaire bi xaw a lëba ci kiiwam. mu mu mu beddeeku ci mbirum ay tur yu ñu changé. mais c'est un membre fondateur de l'APR qui a ah. soutenu euh, Diomaye oui président Macky Sall xam na ko bu baax a baax a baax. <laughs> mais gars yi dañoo départ rek mu xam ne nii du yoon bi mu jël tangente bi. léegi euh, bokkoon ci coalition Diomaye bi. Mhm. donc di ko nuyu bu baax Alioune Alexandre. Eh d'ailleurs am nañ message ma. Ah. xam man dama fi defoon appel pour la diaspora naka la ñu war a contribuer ci apporter seen seen contribution. Euh, ci doxalin bu bees bi. ñu nemmeeku defal na ma benn petite vidéo je mm. ko jeexale boo xam ñëw na ci. je pense ah, que le président Diomaye lui-même. Hmm. Euh, il en a lancé un message comme ça. Ah, ah. gis nga Pape Ousmane l'apport de la diaspora sénégalaise ci euh, li fi xew ces trois dernières années. Euh, lu lu lu jar euh, taxaw seetlu la parce que non seulement. Euh, la plupart yi nekk en Europe Amérique qui sont dans des pays développés. xool euh, dëkk yooyu ni ñu mel. Hmm. xool seen potentialité ak fi mu jugee euh, xam ne Sénégal mën na koo am na teg tegu rek ci loxo yu set. yu set loolu moom moo waral. Hmm. l'apport de la diaspora dama ko doon saluer. te di ko hmm. ba tey. te di ñaan la président Diomaye effectivement. mu dugal leen ci bu baax a baax a baax a baax ñoom ñu apporter seen pierre à l'édifice bëri na ci sénégalais yoo xamante ne borom yi xam-xam. ñoo xamante ne am jaar-jaar am. partout yu pointu xam luy euh, doxal réew. institution yoo xalaatu. tout à fait les Sénégalais sont partout. Mm. Euh, di di honorer le pays la mm. donc euh, ñoom. Euh, appel bu bu vibrant lay doon à tous les sénégalais de la diaspora ñu ñu ñu ñu dugal ci seen loxo bu baax hmm. ñi nga xamante ne aussi euh, en l'occurrence le président Diomaye boole leen ci parce que seen taxawaay seen patriotisme wax dëgg yàlla am na solo am na solo lool am na keneen aussi koo xam te tamit Pa Moussa daf ma wax ni naa la naa la naa la nuyu hmm. ndax ku lay bàyyee xel la bokk ci la naa Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass di doomam ah. ñu ko wax Zeyda Mariam Niass. bu ah. États-Unis di doom ci Baay Niass kooku ko kooku ah. suñu doomu Serigne la suñu doomu Serigne la Maolana Cheikh Ibrahima. dëggantaan euh, di di di ko siyaa bu baax. di ko mm-hmm. jox wàccuwaayam. exemple dëgg dëgg loolu c'est un plaisir Pa Ousmane. Euh, lu lu lu lu lu am solo la. Mm-hmm. ci ci ñun. Mm-hmm. Euh, taalibe gi ñu doon euh, donc euh, di rafetlu seen i taxawaay mm. ci réew mi mm. seen ñaan soxla nañ ko réew mi soxla nañ ko kon Zeyda Mariam foofu ci États-Unis mm. ñu koy nuyu bu baax a baax a baax di ko jox wàccuwaay te mu ngi Sénégal sax mu mel ni moom yemul rek ci ñaana ah. ñoom dañu ak fas yéene accompagner le nouveau gouvernement. mais ci projet yoo xam ne nee nañ yii dañ ko dégg ci Ousmane Sonko mu wax ko bi muy doon candidat en 2019 et d' ailleurs dina ci ñëw sax ci pàcc boobu. ak loo xamante ne Bassirou Diomaye daf ko wax. ci bi mu tollee ci état bu Passy. ok ne jot na ñu am suñu raffinerie bopp. ñoom mm-hmm. nag ñu am liggéey boo xam te ne door nañ ko ci. mu ngi tàmbalee ci seen wéyjur bu góor ku ko xamoon. Mm-hmm. ci dox yu bëri yi nga xam ne daan na ko dox ci mm-hmm. àddina. boo fi nga xamante ne mooy ci Chine. daje woon ak Mao Zedong. mu mel ni tey moo rogalaat ci projet yoo xam ne am nañ ko ci wàll bi te liggéey nañ ci liggéey bu am solo. li ñu bëgg rek nee nañ mooy ni nguur gi ubbee ko ci. ndax bu dee li ko war a accompagne ci wàllu suuf l'actuel xalif euh, bu Medina Baye. Cheikh Mouhamadou Cheikh Mouhamadou Mahi Ibrahima Niass def na ci liggéey bu am solo d'ailleurs dañ ko gis ci image yi naka noonu ci wàllu suuf ak yombal gi mm-hmm. li des rek mooy euh, président bu bees bi di Bassirou Diomaye Diakhar Faye mi ne mm-hmm. am na ci moom yaakaar war na ci mën a taxaw ndax Ousmane Sonko waxoon na en 2019 ne fii di Kaolack mooy xolu Sénégal loolu moo waral sax sama optimisme aussi hmm. à l'encontre du président jomay parce que effectivement euh, bu bu bu bu bu Ousmane Sonko ne Kaolack mooy xolu Sénégal dama koy confirmer ci lu bari hmm. ak potentialité bi nga xamante ne mi ngi nekk dans la région naturelle du Saloum euh, te foofu noonu euh, raffinerie yi te ouais. euh, l'agriculture c'est-à-dire Exactement. le tourisme religieux, religieux. parce que euh, Medina Baye euh, li muy euh, recevoir ci hôte ci gàmmu ak adduna bi comme ni nga ko souligné léegi Maulana Cheikh Ibrahim di suñu sëriñ dañ koy faral di dàkkantal Baye l'international Baye l'international Chine Ghana Mauritanie euh, Nigéria fu ne euh, xam nga ni ay taalibeem ña nga fa. Mm. donc Kaolack dafa nekk pôle touristique religieux boo xamante ne attractivité am. Euh, te it bu àndee ak njabootu Mawlana Cheikh Ibrahim. jël ku mel ni Seyda Mariam ànd ceeg ak ay doomam. ku mel ni Cheikh Ibrahim. def ci liggéey bu mucc ay mi ngi noonu ah ci wàllu yi kon kon kon kon kon dama jàpp ne rek ñoom bu ñu ci liggéey boobu noonu te tamit le président Diomaye connaissant ses capacités intellectuelles et et, et, et sa détermination pour yaakaar bi Sénégalais am ci ñoom ñu jëmale ko moom Ya euh, Zeyda Mariam Cheikh Mouhamadul Mahi yombalal euh, hmm. kii bi parce que ñoom it xam nañu fi nu ne muy euh, Kaolack ak potentialité am donc yooyu noonu yëpp jàpp naa ne hmm. bu ñu ko boole boole force yi boole aussi les idées accompagner euh, le gouvernement prochain. Mhm. Le gouvernement prochain aussi accompagner ces dynamiques la Je pense que mën naa la wax en un temps record. Mmh. que Kaolack dina changer dina changer xar kanam bu baax a baax a baax. parce que ville Carrefour la. Carrefour nga fa. exact euh, te te te à cela s'ajoute hmm. euh, la mais tendu euh, des autorités religieuses à la à la personne de Seyda Mariam boobu. noonu wax dëgg yàlla parce que man Kaolack laa dëkk de. bien sûr développement Kaolack. d'ailleurs ma la ciy interpellé suñu yitte la. suñu yitte bu mag a maga maga mag a mag. parce que mën naa nekk. bu baax a baax a baax. parce que potentialité bi dafa nekk ressource humaine bi dafa nekk. Mm. te ressource humaine boobu noonu Medina Baye daf ci jouer un rôle euh, déterminant. tey jii nii si euh, cette cette cette volonté cette demande vient euh, de doomu Maulana Cheikh Ibrahim. on ne peut qu'être optimiste. bii la insuire te moom sax am na déjà ay rapport yu ñu xam digganteem ak Ousmane Sonko ndax maa ngi mu may nettali en 2021. bi ñu mbiri cooree dëgg-dëgg. bi mu demee seeti euh, président Ousmane Sonko ñu am tête à ñu jot a waxtaane euh, ak yi mu ko dénk euh, xamoon na ni fii lay mujj yooyu yëpp moom moo koy nettali ci bi ñuy wax ci téléphone donc ñu koy ziar di ko nuyu bu baax. te jamono jooju seeti woon Ousmane Sonko nag. waaw <laughs> diggante bi ñu koy jàpp si jours yooyu. waaw nee na avant ñu koy jàpp sax ci bi ñuy waxta bi ñuy waxtaanee Ousmane Sonko mu ñuy wax naan boobu moytul sax lundi bi dinañ ma jël si. Ousmane Sonko waaw donc euh, muy koo xam te ne vraiment dañ na suivre évolution bu buñ ci toll nii te jàpp na ni lii ñu leen yenn am mm. nañu possibilité pour vraiment renverser les choses moo tax ñoom du ñu xaar mm. ñu accompagner cette dynamique euh, xalaat yu ñu am ak i projet yi ñu am gis-gis yi ñu am également ñu mettre ko au service du prochain gouvernement bu Bassirou Diomaye Diakhar fay euh, te loolu am na solo aussi initiative yu mel noonu ñu koy ñu koy encourager absolument te noonu la bëree ah ci ñi may jot ci yu mel noonu moo mm-hmm. tax am tribune yu am solo yoo xam te ne pour ñoo ñu lañ koy eh, jagleel Pa Moussa alors ñu ngi jëm ci bëccëg bi. la le deux euh, am na ñu doon xalaat ni pour pourquoi pas ca stade Abdoulaye Wade ñu mujj ñu ne ca Diamniadio ca salle ba euh, for naa ci weewu mbay ñu ne euh, président jomaa Diakhar fay moo ko bëggee noonu. waaw maanaam nekkul ci mbiru. dëgg la dëgg la dëgg la je pense xaw ma fii laa ko waxee woon xaw ma digg pénc. mais ci contexte bii ñu nekk. Euh, ci euh, moment bi ñu nekk euh, wax dëgg yàlla di demi stade di di di di Mumbai pour man ce n'est pas du moment bi du contexte bi. Ah. c'est-à-dire en 2012 y avait ça toog nañ ay jours yu bëri yoo xamante ne président Macky Sall nekkoon ci benn hôtel de la place. gars yi di jubilé ak nangam et cetera. c'est c'est cette orientation folklorique là je pense après yóbbu nañu ci. doxalin boo xamante ne. Hmm. jàpp naa ne de de 2012 à 2019 presque il n'y avait pas rien la traque des biens mal acquis. Euh, justice bi fii mu mel ni une justice des vainqueurs. Hmm. Euh, voilà. Euh, Karim Wade ak ñam jotoon àndal ci kii autant de procédures euh, d'autres dignitaires du régime euh, Wade yooyu noonu yëpp euh, foog naa ne après bon voilà ça nous a servi pas à grand chose amul loolu woon lenn loo xamante ne rek ci njëriñ. def na ko ba tax je pense après moom moo waral déception bi nga xamante ne mujj na ko am. Hmm. à la fin du mandat du président Sall. moo tax nga jàpp ni jamono ji dañ ko war a dañ ko def dans la plus grande sobriété possible. dans la plus grande simplicité possible au vu des défis yi nga xamante ne ñoom ñooy le président Diomaye parce que en fait espoir bi dafa bari hmm. pour la première fois euh, ci politique gu Sénégal opposant hmm. passé au premier tour des élections daan le régime comme ça am et puis nga gis euh, la campagne euh, de la coalition Diomaye président da gis ñoo xamante ne topp ci convoi yi di daw ay mag ay xale c'est-à-dire espoir boobu noonu. Hmm. foog naa ne on n'a pas le temps euh, de de de de jubiler on n'a pas le temps euh, de de de de de manifestations folkloriques amuñu boobu temps tey bul fàtte. Hmm. au vie de tout ça ñi nga xamante ne euh, euh, on parle de quatre-vingts personnes yu ñàkk seen. seen bakkan ci mbir yooyu noonu ñooñu ñu leen di fàttali fàttaliku. donc kon Sénégal dafa nekk ci contexte boo xamante ne le président élu. Mm. n'a pas droit à l'erreur sur beaucoup de choses donc kon jàpp naa ne folklore beeg yooyu yëpp matu ko fi woon et effectivement heureusement que le président Diomaye il a pris l'option de la simplicité oui. de la sobriété pour avoir une voie vers le développement parce que loolu moom mooy enjeu bi mm. loolu moom mooy dëgg-dëgg euh, attente bi loolu la sénégalais yi di xaar mooy liggéey liggéey boo xamante ne amul fayante amul justice des vainqueurs mm. amul euh, track donc mais justice aura lieu. ah ah oui sur beaucoup de choses justice doit avoir lieu et aura mais euh, comme comme comme li euh, sonal le régime euh, du président Macky Sall. Oui. sur des tracts sur des procédures à géométrie variable ak ak ak une cadence de développement très relative même si jàpp naa ne. am na yoo xamante ne euh, ci ay programme am ak ay projet am. ça nécessite juste. réajustement am na yoo xamante ne jarul réajustement da continuer hmm. am na yoo xamante ne rupture rupture totale effectivement alors ci diggante boobu yaa ngi koy wax mooy euh, euh, euh, li koy xaar moom président jomaa ci ay défi pendant ce temps ki ko war a jox léegi le deux maanaam ma ngay signé ñenn ma ngay signé rek <laughs> ma ngay signé rek di dem maa ngi gis Pape mu ngi wax ci ay passeport diplomatique ah, ah. maa ngi wax ki mel ne docteur Bousso moom ci euh, la ko jaaxal mooy économique euh, CMU oui ah, coppite yi ci indi ak yooyu la koy justifié man kay maa ngi ko jiitu aussi gisoon nañu chamboulement bi au niveau de la magistrature euh, nee naa Pa ko décoré ko chevalier <laughs> man kay chaque jour ma xool <laughs> ndax duñ la woo <laughs> j'ai vu Viviane ay bien sûr ñu Mbaye Guèye Faye ak les communicateurs traditionnels ñu ngi fa maa la ko wax yaa jamais 203 xam nga xam nga Pa Euh, man jàpp naa ne Sénégal ah parce qu'il est toujours le président de la République ah. du Sénégal donc c'est légal la constitution lui donne ses prérogatives mais je pense que c'est inélégant oui parce que à 48 heures de la fin de, sa mandat gay jël ay décret de recrutement pour man c'est pas élégant du tout pas du tout. or oh. lan moo ko war a justifier loolu. mais je sais pas cest à carrière wala seen i euh, parcours ci institution yooyu noonu. Hmm. moo gën a nar a gaaw euh, naka la ko booy di waxee carrière wu kii. <laughs> parce que da ngaa bu ñëwee rek automatiquement da ko fii faxas. non mais parce que ça fait partie des des des des, des promesses électorales du président Diomaye ça fait partie du projet PASTEF. Mm. d'éliminer de supprimer ces institutions budgétivores qui n'ont aucun impact sur le vécu quotidien des Sénégalais. le conseil économique social et environnemental le haut conseil des collectivités territoriales. Mm. Euh, euh conseil du dialogue social. mais yooyu ban impact la am ci biiru sénégalais ak poche sénégalais sincèrement quoi amu fi njëriñ. et puis dialogue de am na fi du benn yoon du ñaar bu ñu gisul benn yoon au conseil du dialogue social nekk l'initiateur. c'est ça donc kon mooy impact am innocence tam lan c'est-à-dire lan la am ci jéexital ci dundinu sénégalais mais ce sont des centaines de membres yoo xamante ne payés par le contribuable sénégalais alors véhiculé passeport diplomatique nangam nangam yooyu yëpp euh, dafa am mais alors euh, le projet PASTEF était clair ci euh, institution yooyu. Mm. donc dafay jógee te daf fi war a jóge ba mu fi war a jógee du tey or bul fàtte ne moom président Macky Sall dafay jëlee Sénat waaye. te bi mu ko fi jëlee. ay inondation la waxoon ay inondation la waxoon. waaw léegi nga jëlee fi Sénat après andiwaatal ñu yii yëpp. ay au conseil des nangam conseil économique c'était pour caser des clientèles politiques voilà euh, doxalin boo xamante ne système boo xamante ne Sénégal yi dee nañ bëggatuñ ko. Hmm. alors donc tey jii nii nga jël ay nit di yóbbu conseil économique. social et environnemental. tout en sa que le régime bi nga xamante ne gagné na la ba pare sénégalais yi choisir nañ ko ba pare mais loolu moom mooy sénégalais seen ba mooy loolu parce que le choix des sénégalais. Hmm. c'était en faveur de la suppression ba ci Malal Talla mën a yëgu ko. waaw ça quand même c'est absurde ah. nan lañ lay baax ah, koy quand naka lañ lay joxee décret te yëgoo ko. dara wax nee na kenn consulté wu. mënul dugg sama bopp loolu. ah non loolu mënul dugg sama bopp quand jox la décret te yëgoo. lii dala wax. non euh, euh, ay borom xel lañ mais bon euh, bu dee sénégalais yi jël nañ option de placer à la magistrature suprême. le candidat. qui avait pour programme la suppression de ces institutions-là kon donc sénégalais yi bugguñu institution yooyu mais yow nga xamante ne sénégalais yi pare nañ ci yow à deux jours nga joxe leen ngay ngay jëlaat ay nit di dugal ci institution boobu loolu lan lay tekki. justement loolu lan lay tekki loolu. qu'est-ce que ça moom mu ngi wéyee li mu gëm. wa non mais ça veut que ni ligue sénégalais yi gëm tamit yitteelu ko parce que sénégalais yi ñoom ñoo gëm que institution yi jógee fa en votant. pour le candidat qui a proposé la suppression. te loolu war a tàmbali le 2 moom mu jàpp ni liñ ko falee woon ci mille ñaareelu mandat jox ko ko en deux 2019. waaw loolu nekk di wéer. mais quand même donc kon euh, yitteewu sénégalais yi bëgg-bëgg sénégalais yi nekkul yitteem parce que bëgg-bëgg sénégalais yi mooy institution yooyu bu mu amati les sénégalais pouvaient voter pour la continuité ils ne l'ont pas fait donc ils veulent une rupture notamment ci rupture yi ces institutions budget du fort là ñu waaye yow ngay jëlaat nit di leen nommer foofu noonu loolooy la c'est pas élégant du tout. Oui. un président à 48 heures de la fin de son mandat ngay jël des décision comme ça moi je me demande euh, à quoi joue le président Macky Sall. Mm. à quoi il joue. personne ne peut comprendre amul lenn luy apporter benn justification à ça mënul nekk. Hmm. alors tout en sachant que oui euh, le président Diomaye. Euh, bu une fois une fois euh, mu prêter serment mais il peut revenir sur tout ça alors c'est quoi yooyu yëpp ah bien sûr ba ci la xew ci Cour suprême aussi coppeeku yi waaw c'est-à-dire yooyu yëpp ça va dans le donc Alpha Bayla lan la. Mm, euh, est-ce que du li fi xewoon tout ça ça va dans le même sens. Ah. c'est-à-dire le président. genre sanction ñi koy xalaatee noonu est-ce que. Oh. yegg na foofu. récompense ñi ko yàggoon. c'est pourquoi j'interpelle le président Macky Sall sur lii muy def a lan la quoi qu'est-ce que ça insinue ah ce n'est pas pour euh, euh, joyanti une administration de la justice ce n'est pas ça le président Diomaye il est là avec son programme avec euh, ses ses ses ses réformes yu ñëw. Hmm. mais lu lu mel ni kuy jiitu j'ai vu Maty Sarr ci benn vidéo sur sa page Facebook. dama di nga comprendre. alors <laughs> benn golo bu yegg ci benn toit di jaxase rek di sànni affaire yi di sànni toit yi comme si euh, voilà bëggul kenn dëkk si fa mais bon euh, en tout état de <laughs> man jàpp naa ne euh, c'est pas élégant. Hmm. c'est pas respectueux du choix des Sénégalais. c'est pas respectueux de la passation de service bi nga xamante ne moom moo fiy am. Hmm. mais loo mënul def ci 12 ans. nan nga ko mënee def à l'espace de deux jours qu'est-ce qu'il veut. lan nga bëgg ah. ban apport les les les les les les les nouveaux euh, mën a soppee soppi ci ñetti fan. donc sincèrement quoi. mais lay dabu. ni ko yéene woon peut-être. waaw mais suñu doon gagné boo boo bu bu bu non moom mënul woon gagné parce qu'il n'était pas candidat. waaye su ma ko léegi yow sa yéene boobu Sénégalais yi nee nañ bëgguñu ko. doo bàyyi c'est ça le problème quoi. Hmm. pas Ousmane. il faut que le président Macky Sall soit respectueux du choix des Sénégalais bi nga xamante ne def leen ko. oui da bett parce que danga gis barki Dembo Ndiaye président euh, Diomaye Faye ànd ak Ousmane Sonko ñu dem ca palais ba la jot xew jeudi bi jàpp ni loolu rek doyoon na pour que mooy bañ a poser acte ni mel. non c'est-à-dire euh, déjà loolu rek. Ah. man jàpp naa ne ils n'ont pas encore passé service. oui. alors il passe des dossiers oui. alors loolu ci euh, passation de service bi la woon bon. oui euh, mooy ni kon gisoo intérêt wu après lii am que ñu jógee jam ñaajo di delluwaat palais. non palais moom faw Diomaye dem fa parce que c'est lui le président de la République. Ah, mooy ànd fa ak président Macky Sall parce que. waaw léegi passation de service li ngay gis ci euh, formalité mais en dessous c'est ça. en présence. des corps d'élite de contrôle ñu am ay mbir yu ñuy régler passation de service yi ngay gis yu yu bëri mais IGE day am liggéey bu am solo bu muy def. voilà léegi euh, yooyu yëpp def def nañ ko yow da ngay passé service après nga bëgg a ñëwaat à de sa mais di décorer waate di nommer waate mais c'est quoi le but c'est quoi la finalité. delloo ñu ko ñu jàpp ni seen liggéey ràññeeku wala kii gëmul na jeex na. ah damay laajte gëmul na jeex na. c'est fii ah, si moom wax na ko. Ah, le deux damay dem. voilà léegi da ngay dem kay yow saa waay doo dem rek lan ngay jëlaat ay nit di leen nommer ci institution yoo xamante ne sénégalais yi manifesté na seen volonté que ni warutatu warutul am. yaa na cëram la te am na ci droit ba féeg la. non mais pas Ousmane euh, mbir mi du cëram la nee la la légalité waxuñu ko waaw ah. mais acte dafay am légitimité at day am élégance yu euh, encadrer ces actes là. où est l'élégance qui encadre l'acte du président de nommer ay ay nit di euh, réajuster ay mbir di décorer waate ci koo xamante ne sa mbir jeex na sénégalais ils ont choisi la rupture par rapport ak ñi nga doon doxalee par rapport ak institution yooyu noonu c'est quoi le but eh bien donc bon maintenant euh, casier clientèle politique peut-être. Mmh. peut-être. la dessus parce que le conseil économique et social environnemental yeneen ak yeneen. peut-être que ils sont là pour quelques mois malheureusement. pour quelques mois. ah waaw parce que xam nga ni xëy rek ni waaw bëgg naa fa jëlee conseil économique social et environnemental au conseil euh, des collectivités territoriales euh, au conseil du dialogue social fa mu jaar assemblée nationale. ah voilà ah, ah. or le président Diomaye. Euh, je pense euh, que ni il va gouverner par ordonnance parce qu'il n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale maintenant mmh. je pense bu dee am na ay député yoo xamante ne intérêt Sénégal moom moo tax a jóg d'abord intérêt Sénégal par intérêt de leur parti ñoom fu ñu war a mën a féete ci boor politique war nañoo mën a accompagner parce que euh, ñoom euh, la plupart ils disent que ni ay député Macky Sall la ñuy doon. waaw alors le président Macky Sall lui-même peut donner injonction à ces députés là qui se réclament de lui pour ñu mën a accompagner la politique du président Diomaye à défaut de ça président Diomaye ne peut pas éliminer euh, conseil économique. conseil du ko a loo gis nga loo bëgg a wax mooy ku mel ne Abdou Mbow ak ñi mu àndal ca jour ba jot ñu ne ànd nañu ci suppression. li nga xam mooy parce que parce que yooyu noonu euh, une modification de la Constitution bon. qui demande la majorité euh, qualifié oui, des 3 cinquièmes oui. donc loolu euh, député Pastef je pense euh, ils sont cinq 25. Euh, 25 boo ko boolee ak waa PRS comme ñoom tamit voté nañu. voilà donc du ñu am majorité majorité qualifiée boobu noonu alors donc kon pour mu mën a. Ah, supprimer ah taxaw. Euh, <laughs> xaw ma position lañ nekk xaw ma pouvoir xaw ma pouvoir déedéet xaw ma ko mais loolu c'est intéressant ñu xam lan mooy doon taxawaayu Barth à partir du 2. non Barth mënul am mënul am <laughs> lu mu wax waa koñ mënul am lu mu wax waa koñ mais daal hmm. euh, député yi bu dee intérêt Sénégal moom moo leen tax a jóg hmm. respecter la représentation populaire bi ñu doon hmm. respecter la volonté du peuple parce que la volonté du peuple va dans le sens de la suppression de ces institutions budgétivores laa alors donc ñoom euh, li ñu war a def mooy accompagner cette dynamique du président Diomaye supprimer conseil économique ak ay haut conseil yooyu yëpp ñu tas ko tegee nale parce que amulul njëriñ askan bi kon ku mel ni peut-être Amy Ndiaye ñii bi ndax maa ngi jot ay information ne moom fi mu ne nii moom tàggoog nag président Macky Sall hmm. waaw bàyyi na APR bàyyi na APR waaw waaw léegi fii moom léegi léegi boppam ci yëf léegi léegi léegi la la ah. ñu war a. Euh, def yu mel noonu. bon voilà y en aura des ah. surprises comme ça après oui oui oui di nga gis ay volte-face yu doy waar. ah gis naa ñu ngi koy tàmbalee gis ku mel nii. Euh. tamit euh, nu mu tudd sax. loolu laa nee na léegi Macky mooy Diomaye Diomaye mooy kii léegi. <laughs> Koura Koura. <laughs> xam nga. di nga Fatou Mbouta tamit mooy ma ngay jéggalu Ousmane Sonko donc. ndeysaan. waaw ah, yooyu <laughs> baax na baax na xam nga xam nga euh, vaut mieux tard que jamais peut-être que ni ñoom xamoon nañ ne lan doon euh, wax ci ñaawteef lañ doon euh, fu ñu bëggoon a dëkkal Ousmane Sonko tey nangu nañ ne dëkku fa hmm. garaawul amul problème dañ doon manipuler am na ci ku sax moom da doon futa tampi moomu nee na li mu doon wax dara du ci dëgg ah, ñu jégal ma ci kàddu gi nee moom da doon fen waaw ah, yàlla baax na en tout cas daal par contre Abdoulaye Seydou Sow moom noonu il reste dans l'opposition waaye dina am dina am dina am ñoo xamante ne euh, dinañ ci des dina am ñoo xamante ne dinañ commencer volte-face mais bon en tout état de cause euh, amul problème Sénégal la képp koo xamante ne nangu nga ne euh, la nga doon def yow ci ay caaxaan képp nga nekkoon bàyyi nga caaxaan yi rejoindre nga dëgg pour l'intérêt du Sénégal amul problème Hmm. amul problème non c'est-à-dire les dix-huit millions de sénégalais doyuñ pour tabax Sénégal donc kon kenn mënul beddi kenn ci lenn ndax ñun ñëpp ñoo bokk réew mi nag. mooy ni à l'Assemblée nationale suñ bëggee yéen ni soxla nañ ko Macky soxla nañ Amy Ndiaye et les députés. Ah. malgré que voilà mooy loolu mais député la. de la représentation populaire ça va contre à l'Assemblée nationale c'est ça la réalité te Diomaye mënul dissoudre assemblée avant septembre. waaye Donc d'ici là, am cet accompagnement euh, du Parlement, il gouverne par te Et gouverner par ordonnance, ordonnance aussi de limiter. Uh ah. -huh. Oui, il ne peut pas prendre le nombre d'ordonnances qu'il voudra. Okay. Donc, quand, effectivement, vous pouvez accompagner, si supprimer, mm. vous pouvez ko tamit l'histoire retiendra rek. kon ci Quand loolu aussi pour mu yomb Mouyombo, dans le Japon, maanaam député Pastef yi jamono ji tamit seen posture war nañ ko xoolaat. ci taxawaay ci assemblée ngir ngir loolu yomb. parce que on connaît il y a des rapports heurtés. non non ah, non non c'est-à-dire le caractère heurté de ces rapports là ñële ñoo war a xoolaat seen taxawaay pas les députés de Pastef. je veux dire ci parce que tey ñoom ñoo falu. man ak ah, falu dafa uute. ginaar dégg c'est-à-dire kuy defaraat euh, taxawaayam. mooy ki taxawaayam baaxul woon. Ah. te ñee la seen taxawaay baaxul woon et le peuple a toujours raison. et le peuple a validé de de de du camp euh, de Pastef. donc kon ñoom ñoo war a defaraat seen taxawaay accompagner cette volonté populaire là même bu ñu àndul ak Pastef. war nañ ànd ak askan wi xanaa te askan wi moom moo teg Diomaye Faye mu nokk. te ñoo bëgg surtout supprimer institution yi. justement parce que la suppression de ces institutions là budgétivores la rupture avec le système mais yooyu noonu yëpp c'est euh, ce sont des propositions ce sont euh, des programmes des projet de du candidat. xalaat nga ko ñoom ñu taxaw xaj xaj dépense seen yeneen yi bokk ci parti bi te bokk. fii CES justement foofu la foofu la loolu nag serait de la politique politicienne. Ah. je je je je je m'explique maanaam le député euh, de de Benno Bokk Yaakaar qui refuse de voter la dissolution du Haut Conseil de des collectivités locales prétextant que ni après euh, honorable Samba Ndong wala ami Abel Top dañuy perte seen liggéey. donc il euh, ñoom dañoo positionné euh, ñooñu poste yooyu. Hmm. au détriment de l'intérêt du Sénégal au détriment de la volonté des Sénégalais. boobaa nag sénégalais ils vont prendre acte. Hmm. parce que septembre boobu yàggatul et le président Diomaye va dissoudre l'Assemblée nationale et que ñu dem. vers ci ay élection élection président euh, hmm. législative. loo gis élection yooyu danga nga jàpp li am nii mën na confirmer wala ci diggante tout va dépendre ci diggante bi. lii day day day gën a yokk. ah euh, imagine enfin je donne mon imagination. parce que man jàpp naa ne euh, Ousmane Sonko. Euh, ci élection yooyu noonu. c'est lui qui doit diriger cette liste là. ah oui oui. comme ni mu ko defee woon waaw. en parce que en en 2022. Euh, chef de l' opposition y avait que Idrissa Seck bu ko doon xëccoo ak moom mu ne ko jëlal Idi finalement se retrouve avec zéro virgule et quelques pour cent. donc malgré cette situation boobu noonu malgré Ousmane Sonko li mu doon dund ci mettit la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi à l'unanimité sans aucune contestation ñoom ñoo tegoon Ousmane Sonko tête de liste. Sonko ci élection yooyu ñu jëmaat man dama gëm ni foofa la war a taxaw. confirmé waaw waaw. en vue de la présidence de l'Assemblée nationale, qui aura euh, d'abord euh, légitimité de contrôle de l'action du gouvernement, de l'évaluation des politiques publiques, de voter les lois. foofu nga ko gën a gis beaucoup plus opérationnel que ñuy xalaat directeur de cabinet bañ a sori palais ngir di xam li xew li dugg a génn. Euh, du ma du ma du ma sori ci loolu. parce que ah. euh, c'est le président Diomaye à qui la constitution donne la prérogative. exclusive de choisir ses collaborateurs ku ci nekk ak station bi nga xamante ne moom jàpp na ne station bi euh, moo baax ci yow booba lay dem Ousmane ko aussi le connaissant xam nga li fi jàll précédemment il ne place au lenn ci intérêt boppam hmm. ci kanamu quoi que ce soit wane na ko find na ko waaw donc kon kooku it bu jàppee ne euh, fi mu toogee dina baax ay la mooy loolu mais daal euh, li ma leer leer mooy. station bi ngay toog moom amul solo torop. ni nga fay toogee moo am solo. waaw parce que station bi boo xoolee dëgg-dëgg mbirum yàlla la xoolal président Diomaye à deux semaines yaa ngi prison <laughs> jékki jekki ñu ne la yaay président de la république nga dugg palais imagine loolu loolu da ngay dellu suratul mulk hmm. xam ne yàlla képp moom moo am. léegi station bi ngay toog. Hmm. amul solo. parce que foofu yàlla moo koy choisir. tuuti mulka man tasha moom moo koy choisir léegi nag yow mi mu teg foofu yow la jox défi de te mettre au service de ton prochain. li nga wax ni dafa mel da ngay anticiper ñu jàpp ni tànneef mën na am coow li bëri. pourquoi coow war a bari lu waral coow ragal de. dama ne. gaa ñaa ngi wax de le président Diomaye. ku ma tegul fii. non ma taxee nii. pour la kan moo war a am boobu sañ-sañ naan foog ma toog fii. amul. yaa ngi koy dégg de. ma ne Pa Ousmane. Ah. je suis clair limpide comme l'eau de roche amul ku fi def lu jar nga taxaw ne man toog toogi fee amu fi. Hmm. Babacar la bakkanam la ñàkk yow saway kooku li mu li mu li mu li mu li mu ñàkk ci xeex bi kenn da koo mën a compas. Hmm. danga koo mën a bàyyi Cheikh Diop dafa dee pour euh, ça François Mancabou saway bakkanam la ñu euh, euh, la ñàkk. Cheikh Koli Idrissa Goudiaby Famara Goudiaby et je peux citer jusqu'à quatre-vingts personnes ñooñu sacrifice yu ñu def pour euh, projet bii nii aboutir. Hmm. kan moo war a mën a am sañ-sañ taxaw fëgg sama dënn ne maa def sàngam ñii ñu privé de liberté pendant de très longs mois ñii génn euh, réew mi exilé alors lii. Hmm. du yëfu kenn Diomaye le président Bassirou Diomaye Diakhar fay ne doit son salut qu'au peuple sénégalais et à la baraka de amul kenn ku muy rendre compte. amul benn tànneef bu muy def. kenn ci contesté ba ba mu am. ko jox du benn lobby maraboutique du benn lobby euh, homme d'affaires du benn lobby coalition. kenn le président Diomaye ne doit son salut qu'au peuple sénégalais. Tahirou Sarr dafa juum. non euh, enfin hier on a partagé un plateau. nee na waxul woon kay. nee waxul woon waxuma Tahirou je parle dans un cadre général. je te dis Pa amul kenn ku mën ñëw ne maa def nangam nañ ma teg ci bërëb sangam loolu amu fi et si on parle de rupture mais attends loolu moom mooy la ce serait quoi que ne dama doon xeex pour avoir un poste que man dama doon xeex pour ñu teg ma fële xeexaloo pour Sénégal kon attention. Hmm. loolu da loo c'est-à-dire loolu ku ko ci def lu lay xaar nga. loolu mooy système bi na dem toogee ne président Diomaye ne va suivre la pression de qui que ce soit mënul suivre dictat wu qui que ce soit mënul suivre euh, euh, ay ay ay ay chantage yu ku mu ci doon nee naa la il ne doit son salut qu'au peuple sénégalais. te jàpp nga ne loolu loolu dina feeñ ci tànneef bi nii. day leer c'est-à-dire ah, c'est-à-dire c'est-à-dire euh, Sénégal c'est-à-dire les premiers de Diomaye dina firndeel la rupture carrément parce que la woon wani na. te am nga lu leer. tëdd muy liggéey bi jamono jeex na toog muy dox jeex na na Sénégalais yi takk seen digg te liggéey xam nga lan moo waral loolu parce que dëkk yi nekk euh, yi yi yi yi yi yi accéder au développement. li ko waral ce n'est pas la politique politicienne maa defoon li jox ma li schéma teg dil jéem ut ay porox ndol pour déedéet da ngay jàngi da ngay am parcours da ngay am xam-xam da ngay am loo mën taxaw nag pour liggéey sa réew jëm kanam loolu kese la ñuy xaar ci ñëpp nag. Mm. ci Sénégal yëpp. pas justice bu taxaw ay euh, ak ay procédures à géométrie variante jamais de la vie pas euh, suñuy potentialité nekk nii ay entreprises étrangères ñëw. tànk yóbbu. Sénégalais yi da ngay sintoo loolu dafa jeex. Hmm. alors oui bien sûr nee a la sànq le président Macky Sall il a fait des choses. oui sur son bilan matériel il y a des choses qui sont bonnes. oui dañ ko war a pérenniser. a des programmes yoo xamante ne baax na. niñ koy doxalee wala ña koy doxal ñoo baaxul. wala liñ koy piloté moo baaxul Prodac dama gëm ne lu baax la. Ah. après réajustement ce régime là daf ko war a continuer avec les quatorze domaines agricoles communautaires. li jënd d'abord lañ lañ ca wax. waaw nii am ak ñoo ci amul. bien sûr. Ah. waaw. ma mbay ñoom. PACASEN PRACAS yooyu noonu yëpp dama jàpp ne Promoville ay projet la yoo xamante ne am nañ euh, pertinence purement ci acte acte euh, frontalier yooyu noonu yëpp. yu baax la te dañ ko war a kii léegi nag ña koy piloté euh, ak yama ya ngi ci wax léegi nii yëpp yooyu noonu loolu ce sont des questions financières yoo xamante ne effectivement la justice daf koy lijjanti hmm. ah oui ah quand même lan moo tax tey jii nii ñu ne dañoo privé Ousmane Sonko def candidat justement une ko waaw qui concernait quoi 29 milliards 29 milliards alors dis donc 29 milliards yooyu noonu l'IGF euh, moom moo ko kii Mame Mbaye Niang nangu na na Euh, kii doon euh, kiiw ma mbay Niang muy euh, l'ancien premier ministre Amadou Ba wax na. Hmm. waaw loolu dafa la of nag bëri na ay dossiers yu mu yor ca coup ak feneen ak feneen. te yooyu yëpp daa war a génn. ah mais xam nga la xam nga la moo ko téye woon. Hmm. bul fatte à l'époque Serigne Bassirou Gueye. procureur de la République. dafa génn ne waxul na mbir yi amul de. dafa ne of nag seen rapport bi ñu def. respecté wuñu le principe du contradictoire mooy delloo exigé par le code de procédure pénale ma ne ko déedéet. et pourtant am nañu ko weddi sax. non le rapport par essence est contradictoire man non waxuma sax je ne parle même pas du caractère contradictoire mais moom code de procédure pénale boobu mu doon euh, convoqué. Hmm. ce code là tënkul euh, OFNAC. Ah. yow ah OFNAC moom office boo xamante ne day enquêté yow ce n'est pas une procédure judiciaire yow yaa yor procédure judiciaire mais respecté le contradictoire bi yow. mais na nga ubbi procédure rek na nga ubbi kii rek. Ah. dafa ko def. dem déglu ci Cheikh Oumar. waaw parce que comme que kay déglu ko d' accord mais yow si sa procédure yow mii la code de procédure pénale tënk yow en tant que procureur de la république yow da nga déglu ko déglu ñeneen ak ñeneen déclenché procédure bi mu ne defuñu ko. alors donc c'est le lieu. ah c'est le moment téere Pape Alé Niang ba. ak lam ci dund. ah moom moo di ñaan. voilà ah. très bien mais yooyu yëpp ça c'est de l'argent du contribuable loolu du fayantee la. yaakaar naa ñebe kilo bi 4000 la. ah waaw. waaw ah, yooyu loolu duñ ci loolu loolu loolu du fayantoo loolu du justice des vainqueurs loolu justice la parce que loolu président Diomaye moomu ko ba koy baale. ah déedéet. c' est de l' argent du contribuable dont il s'agit ah IGE euh, affaire Petrotim. Hmm. ah mais bien sûr passe moi parce que am na yoo xamante ne le président Diomaye ne tâtonne pas déedéet Ousmane Sonko a écrit chronique d'une spoliation. vas-y voir. deful woon ay accusations dans le vide comme ça. quand même 94 milliards aussi. ah cette affaire là. ah daa bu baax ñu jënd ko. parce que boobu tamit <laughs> coow li bëri woon na. manipulation yi bëri woon mais gars yi déglu wuñ sax li leen Ousmane ko bëggoon a wax. nga gis ay tappalekat naan am na ci nangam pour cent. non non c' est faux parce que il vous a dit que l' expropriation n' eu lieu. un contrat qui n'a pas eu lieu ngeen bëgg moom mu laaj ci pour cent parce que en vérité déglu wuñ woon li muy doon wax yooyu noonu yëpp justice loolu. justice boo xamante ne le président Diomaye yoonam newu ci. du ci dugal loxoom ci lenn. ah pour mu leer ñu xam ni. oui bien sûr suy am du nekk comme ko dundoon en liste ba pas du ah? tout ay liste 25 personnes non yooyu taxawul te warul taxaw fii. loolu loolu tamit. non war ko lijjanti tamit 25 personnes yooyu. liste boobu non mais parce que parce que c'était l'utilisation de la justice pour des règlements de compte politique. parce que euh, à l'époque dans surtout la liste des 25 là. il avait justement bu ñu bañoon mu génn territoire bi Ousmane Ngom ba muy génn territoire bi kan la àndal. Ousmane Ngom Ousmane Ngom la même chose Omar Sarr Fatila am déet finalement euh, Omar Sarr s'est retrouvé avec le substitut du procureur de la CREI sur la table du conseil de ministre. alors voilà euh, ce qui a fait perdre au président Macky c'est ce bilan immatériel catastrophique là moom moo tax. léegi lan moo may ba. bi yoon duñ ne Diomaye la parce que da nga dégg ñëpp naan. président Diomaye ñu ngi lay xaar. dossier nangam dossier nangam non non président euh, Diomaye. oui mënuñu koo xaar ci dossier. ah ah non quand même ah mais pas souvent damay gis ñenn yi ci internet yooyu président Diomaye dossier sangam. justement président Diomaye yoonam newul ci dossier. il est le chef de l'exécutif qui doit donner euh, les coups de franche à la justice et que le parlement joue son rôle. la séparation mu leen joxee coup de branche mooy dossier yi mu jot nii ci barki Dembo Ndiaye mu fexe ba yi ci war a dem. non c'est-à-dire waaw moom yoonam le président Diomaye yoonam newul ci justice. Hmm. du conseil supérieur de la magistrature la tegee nen na ci génn carrément que le procureur mu am rupture ci cordon ombilical bi ko lié ak l'exécutif c'est-à-dire le ministre de la justice ne serait pas son tuteur. loolu mën na à partir du 3 loolu jëm ah, bien sûr mooy lan lay laaj loolu xool euh, le président Diomaye du ci tâtonner du ci yéexantu du ci loolu c'est déjà réfléchi mûrement avec des propositions pertinentes du projet PASTEF am na foo xamante ne. Hmm. le président jomaay du làmbaatu xam na fi mu jëm. maanaam day toog xam yoonam mi ngi nii léegi nag effectivement am na yoo xamante ne les gens euh, bu ñu xalaat mu doon benn bagget magique. ok waaye am na yoo xamante ne processus la laaj temps lay laaj pour que parce que système bi nag saa yi euh, du lu ndaw de. Hmm. c'est un système qui est là depuis 1960. combien d'années. 64 ans 64 ans. waaw ay racines yoo xamante ne sa waay samp nañ 64 ans nga bëgg koo déjéki ci benn bis. dafa mën nekk munoo hmm. koo déjéti ci benn bis effectivement Sénégal réglé nañ ko ci benn bis moom mooy vote ba. le 25 mars moom Sénégal voté nañ war ne comme ni ma la ko waxee woon au téléphone que ni système bi jeex na. mais it Ousmane Sonko feral nañ say rongoñ li ñu xam li ñu bëgg moom mooy le développement. Hmm. tegu ci yoonu dëgg. alors donc loolu loolu nag saa waay 1960 ba tey du lu ndaw. Hmm. système bi am na loo xamante ne ça peut même surpasser le président Diomaye. ah, ah. ah oui système bi ça day dugg ba ci biir. Euh, partis politiques yi les hommes d'affaires les institutions euh, les les les les les la classe maraboutique. yooyu yëpp euh, système baa ngi système bi dafa gudd dafa yaatu. dafa euh, ancré multinationales racines yi dafa sori parce que dafa yàgg. Hmm. loolu nag kuy xaar mu dijjit ku benn ci benn acte Diomaye. non mënul nekk yaa am na yoo xamante ne process la laaj. d'accord ci dossier yooyu tamit da bokk contumace. da cee bokk tur yi nga xamante tu tuddoon nañ ko ba ñuy wax igage yaa ngi koy fàttali. waaw waaw ñooñu nag. yooyu Ousmane Sonko dafa porté woon plainte. justement. bul fàtte loolu. te du plainte benn rek ay ah, plainte plainte plainte la. ah plainte yooyu Ousmane ci euh, obstruction à l'administration de la justice ci complot bu ñu organisé contre moom. Hmm. mais aussi des plaintes yoo xamante ne c'est argent contribuable bi la plainte yooyu yëpp dañ koy diligenté tey. Hmm. ah parce que c'est une justice indépendante c'est ça Pa Ousmane. ce n'est pas que la plainte vient de Ousmane Sonko que non non non euh, il est au pouvoir il a. wala kii non du loolu justice bi yoonam newul ci Ousmane Sonko moo plainte ak Karim Wade plainte wala Amadou Ba moo plainte justice bi moom plainte bu ñëwee daf ko war a diligenter. Ah. convenablement. alors donc du fayonte du chasse aux du du dara. ci yooyu c'est le fonctionnement normal de l'administration. mooy ni xaar nga kon dossier bi ñu biwaat ko comme ah, contumace. mais mais mais mais mais, mais euh, dossier boobu ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas amnistié. ah, ah léegi nag bon am na yoo xamante ne Ousmane Sonko moo porté woon plainte contre yeneen bi bu ko neexee retiré plainte am y a pas de souci. mais yow xaaroo ko ci loolu. mu retiré plainte am. je sais pas loolu loolu mbiru loolu loolu mbiru boppam la mbiru boppam ak fi mu mujj yëpp mën a situer les responsabilités. oui bien sûr man gàmm ah. gëm naa ne loolu dafa war a am. Euh, bon tout les gens parlent de Adji Sarr qui serait en voyage. effectivement c'est vrai. am nga ci confirmation. oui. fu mu ne. Euh, dem na. ñii ñii nii nii am na ñu bëri ñuy wax Canada mais ba ba te euh, démb daal fi mu fanaan Suisse la. ah Suisse la fanaan fi mu fanaan la fanaan xaw ma nag mais bon de toute façon. Euh, Adji Sarr mbir mi moom moo porté plainte waaye gëm naa ne bu ñu ko euh, convoqué Sénégal euh, état am bu bëggee mu ñëw day ñëw. ah ah oui. amul fu mu mën a nekk ci àddina. non mais moo porté procès plainte <laughs> teel. pare di daw. waaw su ma yaa porté plainte ba pare di daw. après jàpp na ne jeex na. lan jeex na déedéet moom jàppul la jeex na de Adji Sarr moo la gën a xam ne jeexul. ah oui bien sûr Adji ah, Sarr il nous écoute mu ngi ñuy déglu xam na ne le contumace s'il vient à être arrêté l'arrêt de condamnation est anéanti et que le procès doit être réorganisé Adji ah, Sarr vous comprenez ça au moins Adji te du xam nga loolu maintenant le procès sera réorganisé suivant les formes ordinaires de procédure Adji ah, les mêmes formes ah mais Adji buñ la convoqué yaa yaa ko oh, yaa porte plainte de te attention attention ci lan xam na loo xamante ne. ci diggante boobu noonu. moom aji. Euh, xaw ma xaw ma kan ñan ñoo ko aidé pour mu dem mais ce régime euh, sortant la ñu si bari il gagne dañoo am intérêt pour aji dem. lu tax aji saar li mu xam a bari. et à des niveaux insoupçonnés aji saar bu waxee <laughs> loxo ndar géeme. Ah. li mu xam a bari. diggante boobu bi waaw doy ay yeneen dossiers yu ay rebondissement yi parce que mais attends ana ñu doon soutenir Adji Sarr justement ñu ngi fi de da nga leen dégg kenn nga leen gëj a déggati ñu waxati Adji Sarr nekkuñ di wax non wax Adji Sarr wax ci Adji Sarr kaawu ah. Adji Sarr ah. mais parce que ba ñu paree ci moom parce que ku ci nekk da nga amoon sa agenda politique ba seen agenda politique jeexee fële lañ tegee Adji dañ ko use elle m'entend elle me am na ñoo xamante ne dañ koo utiliser pour des règlements de compte politique te loolu waxoon nañ ko ko nag ne ko ñu ngi lay artu ci loolu noonu ñii di la topp nii yëpp di kii dañoo am ay compte politique yu ñu bëgg a régler mais tout le monde sait que ni euh, voilà léegi. kon ñii am intérêt mu bañ a wax ñoo ko génnee bu baax parce que ñooñu it le procès réorganisé. Hmm. non loolu loolu loolu loolu jaral na leen ba ici repose. nee naa la kon Pape Moussa kon da ànd ci nañ tëj kon frontière bu gën génn. AIBD bu kenn dem. non non euh, bon. xam nga xam nga ñu xam nga ñu ñu ne danoo gérer de manière sobre et sa sax ñu ndaw xanaa. je repense ah, les dignitaires de ce régime là et c'est de l'état dont il s'agit hein état mm. du Sénégal ku mu ci soxla ak foo mënti jaar bu la soxlaa dangay ñëw naa ah. la wax loolu bon maintenant am na dëkk yoo xamante ne c'est pourquoi aussi bon c'est pas pour rien ñuy tànn réew yooyu euh, boo xoolee Euh, dictateurs yi ci Afrique yëpp ñu bari bokk ñoo xamante ne ni ñu doxalee seen réew doy na waar doy waar ñoo xamante ne boo leen bu ñu paree xam nga fan la ñuy dem. Qatar Dubaï Maroc et cetera dëkk yooyu noonu. nga xamante ne dëkk yooyu du ñu bàyyi <laughs> waay. Maroc dëkk yooyu du mais méngo su ay lu marem. waaye métti d'œuvre d'une rouge. en Éthiopie ñuy tetee euh, Ahmed Sékou Touré. Mm. da doon rendi à la ramponeur Haïlé rendi Haïlé Sélassié. Euh, Ahmed Sékou moo wax ak moom. et que kooku noonu la mu fa def ci ñaawteef. Mm. anam dans les pays du Golfe. Euh, près de chez demal Oudara. ci conflit sénégalo-mauritanien. Mm. ba tey jii nii boo demee ci euh, au nord tu verras des veuves et des orphelins anam pays Golf voilà donc kon parce que ñooñu et puis ñooñu euh, yenn dëkk yi droit de l'homme yeeg nangam mënuñ leen. Euh, conseil la mais mënuñ leen seen loxo. parce que ils ont du pétrole. boo yoree pétrole ça va. kon Pape Moussa yaa ngi ñuy jox une euh, idée de pourquoi destination Maroc. non c'est c'est pas gratuit. kon ñi la wax nii ay Harare la nekk ay Qatar la ñuy nekk ay Dubaï la ñuy nekk ay Maroc la ñuy nekk kenn mënu leen laal parce que ñooñu it kenn mënu jël des mesures de rétorsion contre ñoom. Ah, ah. mais ah. ce dont j'en suis mooy euh, le président Macky Sall donte ñaawtee fii nag bari na. te Maroc la jëm. donte li fi xew yëpp. te euh, waxoon naa ko fi euh, dina ko souligner waat. mooy li ma journaliste bu mag boobu waxoon. Hmm. Ousmane Sonko ak Macky Sall danoo bañante te xamante wuñ. waaw loolu après loolu après loolu moom moo andi décrispation bi. alors ña ko doon defloo moom président Macky Sall donte ñoom ñoo ko doon defloo donte c'était de la manipulation ki leen bëggoon a représenter président Macky Sall ki la bëggoon a présenter ci Ousmane Sonko terroriste. ci Ousmane Sonko yéekatu fitna Macky Sall président de la République dafa dem ba xam ne loolu du dëgg mais c'est lui le président de la République. kooku kana ki waxoon loolu yëpp kana. Euh, euh, kooku identifié na kanti wax ni naan ñi ko ñi ko. ñi ko du kenn ñi ko. c'est-à-dire président Macky Sall dan li ñu ko doon présenté ci du dëgg. nitu fitna ba ñu doon wax moom xam na ne léegi du woon dëgg. parce que Ousmane Sonko n'a jamais été nitu fitna. ay données erronées. laal na ci renseignement erroné des bien sûr. ay très erroné même. moom moo yóbbu euh, mu def lii nii yëpp mu def. kon renseignement bi seen loxo dugg na ci. mais euh, ci ni ñu daan présenté yëf fii non mais renseignement ay nit lañ. waay fi nekkoon naan ay état nangam état nangam ana ñu tey état day juum état du hmm. yàlla renseignement day. manipulé day juum day nangam léegi nag loolu loolu yëpp ba ko xamee moom responsabilité moo engagé parce que moom la sénégalais yi fal. Hmm. mais jàpp naa ne aussi ak station bi mu occupé ak euh, garaawul. ah euh, ñu wax ay tra trahison de. mais lu ne am na fi. lu ne am na fi. am ñoo xam ne ñu ngi naan résidence surveillée. après le xool lu ne. am na fi. saa yi euh, fii lañ ko doon waxtaanee ci radar. waaw Ousmane tout de très haute trahison. ay acharnement yu metti ci kaw ay sénégalais. Hmm. ay bakkan di rot. la woon yàggul. vous êtes témoin de cette histoire-là. lu ne ci ñaawteef ñu jël ko di ko teg une formation politique. dem ba da koy bañ mais dañ koy wax mooy ñu stigmatiser. ay ay ay laa ci bëgg waaw waaw non. <laughs> grand responsable laa ko. fi am tamit ñu xam ne daf fi am. constat bi fi am. Mm. donc yooyu noonu yëpp. mais mënuñ ko rek après balayer nañ fàtte non non non. Mm. te moom lañ faloon. donc sa sa sa responsabilité elle est pleine et entière. Mm. bon mais comme ce n'est pas taluñu loolu quoi. Hmm, taluñu loolu. taluñu loolu ay ba ci police ba ci police ba ci gendarmerie. tudd nañ seen i kilifa aussi ah. bon nu ñuy euh, def loolu. euh, j'ai vu euh, une précision du capitaine euh, Seydina Omar Touré ci ñuy ah. wax mais bon j'ai pas compris quoi jargon bi dafa technique <laughs> capitaine bu technique quoi gën ko gën a wàcce niveau bi liir naa <laughs> na ko gën a na ko gën a diluer waaw parce que dañ ne tutelle bon mais daal euh, tutelle gendarmerie lañ teg armée liir ah, naa ah, poste capitaine Touré bi compliqué na torop ci man capitaine Touré après dinaa la woo dinaa la woo nga allégé ma ko man après <laughs> mais daal mais daal gendarmerie lañ jël dugal ko ci armée bi nee na demeewul noonu daal. am na nu ah, ko expliqué dinaa ko woo après. dañuy génnaat mu leeral mais man ak président Macky sa responsabilité qui est pleine et entière et tout ça mais yooyu noonu yëpp du cherche au sorcier du du du du du justice des vainqueurs du traque du dara. mais Pa Moussa est-ce nañ ko mën a topp. kooku war nañ ko mën a topp. ah bien mën na nekk mën na nekk mais pour. non na nekk ndax dañ ko war a topp. non lu suñ priorité pour man. Ah. du suñ priorité. fi mu toll nii euh, bakkan yi rot loolu dafa war a leer. lan la situer des responsabilité loolu liggéeyu justice la bokkul ak liggéeyu président Diomaye. Hmm. président Diomaye liggéeyam moom mooy alléger la souffrance des Sénégalais. cette disparité régionale mu jeex équité sociale am. ñu engager la voie vers le développement teewut justice fait son travail ah ci lépp li nga xamante ne xew na fi justice bi continuer ses procédures enquête nañu nag les responsables sont là ñu xoo ko xool ndax dañoo baale wala baale wuñ mais nañu xam kan kii kii kii a fait quoi. kii a fait quoi ah mais Pape Ousmane ñëw rek ne ma baal ma hmm. dama naan la lu xew wala parce que xaw ma loo def. ah la technicienne pen mën a mën a tooñ ba day yeewu rek dama baal ma dama naan ko déet sa Penda taxawal loo def. ba mu leer bañ ne lii nga def surtout y' sa responsabilité ah d' mais loolu du problème mu président Diomaye. ah non non loolu du objectif fu président Diomaye. mais président Diomaye lui euh, li muy gérer moom mooy. mais jàpp ne dina doon neex Omar Sow ñu lijjanti président Macky Sall ci xam nga xam nga. Euh, Omar Sow c'est ah, quelqu'un xam naa ko mu jot a wax yëpp. xam naa xam naa seen xam naa Omar Sow leen wor. Euh, mooy trahison bi xam naa ko euh, man sama position par rapport ak régime bi mu bokkoon. Mhm. ñëpp xam nañ ko. parfois daf may woo téléphone wax waxi dënn carrément kii coupé nangam. du ma tere li ma gëm dama koy wax. moom Omar waaw munu dara mënumaa ébranlé dara mënumaa tiital xët xët bu mu mënti doon ak arrogance boo mënti jëlee fenn man je euh, ci sama yoon alors Omar Sow ku ne mën na nangu ne. il s'est sacrifié pour le président Macky Sall loolu tamit nangu dañ ko ko nangu. jógee Gabon waaw xeex aussi ci régime parce que li mu doon def noonu yëpp man jàpp naa ne euh, xeexal président Macky Sall hmm. euh, gis naa ko ci benn euh, interview ak Buur. waaye mu ne saaga nañ fi ak ndax yow nangam nangam yooyu yëpp xam nga loolu yëpp jël ko fi woon. ay hmm. saaga matu ko fi woon. <laughs> matu ko fi woon. Ah, c'est pas ça l'engagement politique. engagement politique du sax nga waaw arrogance et pourtant noonu la ko waxee ci euh, kii bi jaru ko mais li ngay comprendre mooy. mooy sa frustration euh, sa déception oui parce que moom jàpp na ni le président Macky Sall n'a pas mouillé le maillot pour son candidat à pouvoir loolu tamit dëgg la. da nga gis mu jàpp ne am na lu dox ci diggante président Macky Sall ak. da nga da nga gis da nga gis président Macky Sall ànd ak Amadou Ba euh, campagne amul hmm. amul te. Euh, Awar am na yu muy wax. Hmm. di nga xam ne kii il est renseigné sur beaucoup de choses. Ah. attention comme am na am na yu muy wax. mënu hmm. euh, may dugg ci yenn détails ah, mais mais mais yéen sa attention yi jàpp ni euh, wér na li li ko nit mën a nangul. Hmm. mooy ne il était fidèle loyal au président Macky Sall. qui est son mentor politique apparemment et il dit que ne il l'a quitté maintenant. donc kon am na yoo xamante ne. mën nañ ko koo nangul ci euh, engagement am na yoo xam ne mënuñ ko koo nangul parce que engagement justifié wu ko justifié wu ngay saaga kenn. saaga kenn waaw. ko tey mi ngi nii il est à te xeex na. te euh, pendant douze ans. Euh, nee na musul def conk ñam na conk tey ci régime mu Macky Sall la ba tey ci régime mu Macky Sall la ba tey. alors ah. ko yóbbu conk xeex lañ wax loolu la. Ousmane Yara bi mu dajal ci palais. waaw waaw wa bon. xam naa Ousmane Yara. yaa ah. wax yaa wax turam wala jëndi ko donc. Euh, loolay radar rek. waaw loolay radar donc euh, Ousmane euh, Yara aussi. bi ma déggee affaire bi. sama sama sama sama. rek nangam je fan la dëkk. fan la Yara la. alors donc kon mook Sow di xeex pour man voilà quoi. yenuwul maanaa euh, yenuwul maanaa euh, yaraa euh, ëpp na loolu. mais bon bref li nga xamante ne moom moo ci xew. ci diggante bañ koy dégg ci médiation. ak entre président Macky ak. Ousmane Sonko yàgg na. man dama gëm ni Ousmane Yara ku Sénégal war a delloo njukkal la. lu tax parce que décrispé na loo xamante ne fooguma woon fooguma ni. Euh, bu amul woon dinañ mën a euh, génn ci situation bi aussi facilement et bien avec grandeur. Ah di nga oui oui euh, euh na ci bu baax a baax a baax bu déterminant bu décisif. bu ñu mënta tuddee négociation. bu ma mënul dugg ci biir. ah waaw lu tax mais ah. lu tax parce que. Radar. en fait waaw seen <laughs> <laughs> ah, <laughs> tamit. <laughs> xam nga mais mais li ma la mën a wax. waa réew bëgg ko xam. li ma la mën a wax mooy. ñu mu intéressé leen. ma ne comment on est arrivé à. ce que ñu am jàmm ji. waaw loolu bëgg nañ ko am pour la postérité ne serait-ce que génération yi ñëw ñu ne ah bu ñu yegsee ci situation. ay am na loo xamante ne ñaanuñu ko. am na loo ba dool situation ñu ne yër ci ginnaaw def. Euh, rétropédalage. am na loo xool lan moo ñu may ñu yegg si à ce niveau. am na loo xam am na loo xamante ne. Euh, Ousmane Yara def na ci njàmbaaram def na ci mën-mënam def na ci kàttanam d'abord sans attendre rien ci kenn loolu c'est une première chose euh, émission dans cette affaire était désintéressée jàmm rek la ci wutoon ah. deuxièmement mooy ñi nga xamante bu bëgguñu woon jàmm bi les rentiers de la tension te a t'avais dit ici que il y avait des de la tension bëgguñu woon loolu am na ñu bëri seen frustration ak seen tëb li doon bañ mooy li bëggoon mooy cette confrontation Macky Sonko dowee continuer donc kon Ousmane Yara ñooñu dañ ko doon bloqué pour que li muy dox ci jàmm mu bañ a am mu bañ a am tout parce que ñoom bëgguñ jàmm d'où des rentiers de la tension parce que tension moom moo leen di dundal hmm. c'est pourquoi je dis que ni njukkal amal nañ ko Ousmane Yara mais tamit y a eu la main dans ça oui mais njukkal parce que ma ne yaa xaaral balaa bi ma li tax ma ne y a la main de Dieu dans ça mooy Ousmane Yara dam jógee pour euh, dox jàmm war a gis ak Ousmane Sonko comme xam na ne Ousmane Yara xamante na ak président Macky Sall ils sont proches Ousmane Sonko était réticent et c'est normal au vu de ce qu'il vient de traverser ci euh, trois dernières années yooyu c'était compréhensible mais euh, dafa am keneen koo xamante ne ci mbir mi joué na ci rôle sans pour autant en fait euh, mu def acte mais dafa dalal xelu Ousmane Sonko ah xaw ma lu ko andi peut-être loolu yàlla la moo tax ma ne la yàlla may de jë mais li dalal xelu Ousmane Sonko pour mu mën a déglu ki koy dégg euh, ku koy seet si euh, mooy Anna Diamanka kenn ci soxnaam waaw ah dafa xamante woon ak Yara tax na Ousmane Sonko dal alors donc ce que je veux mooy yaa euh, Ousmane Yara avec sa volonté xolom bu sell bëgg jàmm bëgg euh, Sénégal dal parce que effectivement loolu moom mooy jàmm ñëpp mais aussi yaa yàlla bi ñëw apporter sa touche pour que décrispation boobu noonu am léegi nag ki nga xamante ni dafa jugoon pour euh, fitna di wëy nekk rentier de la tension ñooñu loolu arrangé wuñ leen moo tax Ousmane Diarra dans ce processus là. lu ne daj na ko ci. lu ne jéem nañ ko faa galgal waaye yàlla def na comme ni ko xaritam boobu waxee woon Amadou Wañ waaw moom yàlla dok ñoom yàlla da leen a may ci wàllum euh, médiation ak yu mm. parce que def na ko ci dëkk-dëkk yu bari. donc euh, c'est le lieu pour man. gërëm ko. Euh, de remercier Ousmane par rapport ci taxawaayam taxawaay boobu noonu. nga yaa ma ne la sànq yow yaa ne. Mhm. nga bu rek naan la baal ma te xamul la waaw waaye léegi yaa bëgg ñu ko sant ko waa réew mi yëpp gërëm ko sant ko day fekk ñu xam lan la def waaw waaye noonu da nga am loo cof mais bëggoon ngaa ko. <laughs> de mën nañoo retrouver yooyu yëpp ci mémoire Ousmane Sonko yi. parce que Ousmane Sonko tamit wax na leen wax na la ko euh, nee na leen mbir mi comme film <laughs> xajul fii effectivement il a raison comme film kañ nga yaakaar ni war nañ ko mën a jox parce que bu dee ci liggéey nañ ñuy woo jàppoo ni benn ci ñaar ñetti yooyu rek bu ko génnee juste après ñu introduire kii di Bassirou Diomaye Diakhar Faye mën ta changer un peu débat bi ñu bëgg mu des ci les enjeux li nga xam te ne mooy xaar mais inévitablement inévitablement c'est-à-dire ça euh, li ñu fi euh, waxtaanee fii ci radar boobu ba léegi je pense que dañ koy ranger ci rubrique des pages sombres de l'histoire de notre pays et on ouvre une nouvelle page pour une nouvelle ère, c'est-à-dire le développement. Okay. Euh, le décollage économique l'émergence pour paraphraser euh, le président Macky Sall kon nag bu wax ne y' a plus place que Ousmane Sonko di ñëwaat ci li jàlloon. mais même bu dee dafa war a. bind ay mémoires euh, acteur politique bu nekk. bu dund li Ousmane Sonko dund di nga def say mémoire pour nit ñi xam dëgg-dëgg lii xew. Hmm. mais am na yoo xamante ne et surtout ceux qui attendaient à ce que bi mu génnee prison rek mu def communication. boobu mais loolu c'est de rien comprendre quand parce que Ousmane Sonko un dafa doon dem campagne. dina ñëw di andi ay discours boo xamante ne ça va nous orienter de l'essentiel c'est-à-dire la camp euh, l'élection qui devrait se faire semaine. Hmm. Euh, mënul woon nekk. alors donc kon au vu de tout ça li nga xamante ne moom euh, la la la la dund ci biir Ousmane Sonko dina ci euh, wax ak sénégalais yi Ousmane Sonko aussi euh, gisaale na ci xamaale na ci lu bare bare bare bare bëri loo xamante ne je pense effectivement dina mën a am réajustement ci yu bëri yu mu yu mu doon. xalaatoo Barthélémy Dia sortem bii di ñëw it mu wane ah que taxawaayu opposition dëgg du ñu may ñi fi ne. maanaam ah, maanaam opposition. ah mu nekk ci opposition oui une orange Khoureychi en face de lui à chaque fois. Ah. ah oui bien sûr il a perdu jusqu'à perdre son bureau de vote et c'est l'œuvre de Khoureychi euh, maître Ngagne Demba ne kon gisoo fi daal fii nguur gi. ñi leen war a mën a taxaw doon def leen faire face. non face pourquoi. balaa ngaa xaar benn par benn bu ñu def une opposition de faciès parce que c'est Diomaye Faye qui est aux affaires c'est le Pastef euh, qui est au pouvoir je dois m'opposer looy opposer balaa ngaa opposer da xam li ngay opposer lan la bu ñu ñëwee tegu ci yoonu da ngay opposer c'est pourquoi ceux qui s'affichent comme des opposants wéruñu ça veut dire que nit ñi dañuy politique rek a jëlee hmm. parce que damay opposé wu Pa Pa Ousmane def lu ma d'accordul ba pare yow koo xam ne defagul yow nga ne da nga koy loolu kay moom mooy yow du opposant hmm. yow da nga am koo mere loolu mooy une opposition de faciès parce que c'est président Diomaye qui est au pouvoir que tu dois systématiquement t'opposer et si le président Diomaye ñëw teg le Sénégal vers euh, le développement looy wax da opposé wu ci loolu. da nga naan tekk bàyyi ko. da nga naan tekk ko ba xam fu mu jëm. Hmm. bu tegee Sénégal sur les rails du développement tu n'as aucun intérêt à s'opposer sinon da ngay def politique politicienne. période de grâce bi lan la. y en a pas y euh, euh, bi. d'aller accompagner le président Diomaye avec patience sur certains points. Hmm. avec rigueur et parfois capacité de contrôle te lii tax tey jii nii président Diomaye arrivé au pouvoir hmm. da nga koy euh, ranger aussi c'est aussi tributaire de euh, l'exigence de ce peuple-là. Ah. ah oui le peuple a fait face quand bu ñu bëggee reporter élection. ba éliminer tous les candidats de Pastef et cetera et cetera tout le monde était là pour faire face que loolu bu mu jàlloo alors donc kon loolu noonu moom moo fi teg Diomaye alors donc le président Diomaye il na gagne rien à ce que ce peuple là croise le bras toog di ko seetaan déedéet da nga koy accompagner. su naree juum nga ne ko fii la. Hmm. askan boobu noonu parce que euh, euh, yorum réew. dynamique bu bu bu bu participative la war a doon. et que le projet PASTEF aussi ci biir da ci fekk une démocratie participative. participative ouais. alors cette participation du peuple Diomaye daf ko soxla ce n'est pas du état de grâce. Hmm. du pression du oppression non non <laughs> accompagnement la léegi la kuy jug tey jii nii ne opposant la yow xamal ni loolu ngay def noonu moom système bi loolooy balee parce que looy opposé wu ku commencé gul ah on s'oppose à des idées pas à des personnes et je vois des gens qui s'opposent à des personnes parce que une personne qui n'a pa encore pris fonction nga ne opposé nga ko kon yow xamoo li ngay def parce que booy opposé wu ay idées ay actes ay principes ngay opposé wul et non ay personnes alors koo xamante ne tegagul benn acte waxagul dara defagul dara en tant que président de la république nga teel a affiché ne opposant nga ça veut dire que ni yow nit ki nga bañ. Barthélémy Diaz pour ne pas le citer bon je pense qu'il doit pas être à la fête. ah ah non dañ askan wi dañ koo wan ne mairie bi nga toog Ousmane Sonko la. fal na maire fal na député tey fal na président kenn du Ousmane Sonko kenn du moom kenn du moom si mim réew. léegi loolu dëgg Pa Ousmane. ni nga ko li na ko ah. ah ah ah bu yóbbu na ko galax <laughs> xoolal euh, tey jii nii Barthélemy Dias dina xat ci siège mairie de Dakar boobu. ndax waaw ndax la mu doon bañ la ko sénégalais yi wan ki la dëjët ci euh, boobu siège Ousmane Sonko la tudd. mu neex ko tey mu naqari ko tey ba mu waroo ak Ousmane Sonko bureau de vote mënu ko gagné kon kay kooku Ousmane Sonko la fa teg il doit être gêné dans cette chaise là de maire de Dakar. Hmm. ah oui c' est là-bas où il a cherché Abass en tant que premier adjoint. waaye alors disant que ni ah, moom moo gagné. foofu parité la woon kat. ah ba tey mais xamoon na ko avant bi mu ko fay teg. waa léegi te du foofu moo moom moom moo fi tax woon na man a. Hmm. voilà léegi wan nañ ko ne ko Ousmane Sonko la fa teg boo nanguwul ci Ousmane Sonko boobu démissionnaire nangul rek ne moo la fa teg te nga doxal. Ah. loolooy dëgg. gañewul fenn la gañewul. mais tu as vu la les les les voies de différence. entre Diomaye wax ne septembre bu ñu dissoudre assemblée nationale ñu def ci ay élections mooy day perte mandat de député. qui ça Barthélémy Diaz. donc Barthélémy Diaz député maire ak yépp Ousmane Sonko ko ko jox nga naan day perte. perte na ba pare war na la ko di gisoo ko ci présidentielle. <laughs> gis naa fu mu toog muy député muy maire Ousmane son ko fa dégg. d'accord moo waxoon ne liy génne Ousmane Sonko loxoom dina ci nekk. dina ci nekk waaw ah alors xam. tu as vu la main de Barth. gisoo ko yow de Yara nga fi tudd. waaw Ousmane Yara yow kenn daa ngi. ak Aliou Niang teg Alma. waaw Mauritanie jamono jëkk mu ngi Sénégal. Ah, ah, sax sa ah, ni ñu ko waxatee sax sa sa ngalax mu ne yegg si. waaw kay Viviane toogal neex na bul demaat fenn bul demaat Mauritanie réew mi neex na réew mi am na dal. <laughs> waaw di la souhaiter joyeux anniversaire. Euh, mu mu gën a dund. am wér. te lépp loo xamante ne rek mu ji aspiré ci moom. Euh, yàlla defal ko ko. donc kon euh, tey jii nii moom Sénégal neex na. bu demaat Mauritanie toogal fii. fête anniversaire bi ak suñu xarit bi Gabriel. Gabriel buggoon na laa indil nga lax mais bon nee na la <laughs> ko desoon yónnee na ma ko. ñu ah, ma yónnee ñu <laughs> ma yónnee diis yi naan nga ko. Gabriel waxal ci lii. ak ñoom finance Sagnal maa ngi di gërëm bu baax. xool yónnee nañ ma ay. xoolal gi am solo yow ñaata paanu nga man de lañ daal xoolal jox da ma ko. waaw yow na nga muñ daal ba beneen jamono. waaw ah, loolu de yàlla de. moo tax vitamine yi du ñëw. bi ñu teg yéen. Ah, gis nga ko de <laughs> nee na moom it ma ngay waajal. Ah, ah. waaw mi ngi mi ngay waajal. Ah, te te te bu ñëwee incha allah. moom daa yéex nag de. ah dinaa la seet affaire rek réew mi. rek. te xam nga moom. <laughs> suñu xarit euh, boobu ci euh, euh, fële ca États-Unis interprète la ci juridiction yi. Ah. waaw waaw xam nga tey jii nii. Euh, ku ñëw fii ñu war la àtte ngay làkk yeneen. foog ñu andi interprète. Ah, du coup elle est très euh, ci États-Unis xam nga dafa yaatu. yi muy voyager bokk bëri mm. trop trop trop. Mm. donc ñu ngi koy nuyu bu baax ak. bu xam nga Roger Boissy Jibril Diop. Jibril Diop waaw. Jibril Diop ñu macha allah ñu ngi koy bëggee ah. bu baax. moom it euh, ki nga doon waaj wax léegi. waaw Roger Boissy. ñaata paanu nga lax la lay wax. <laughs> Paa Ousmane nag bàyyi. man daal damaa toog rek ñu may woo saa fan nga nekk waa nii yónnee ma ne aywa bisimilah. ah <laughs> ah ah xam naa nag dinaa fexe ba nga jot sa wàll daal waaw waaw. Ah, ci pexe nga waaw ci pexe yooyu daal ne. daal daal daal daal daal Ndeye Arame Touré kaay dimbale ñu ci lii. lii la yàlla dogal. yàlla daa dogal daal. waaw ah, loolu la dogal de man de dara damaa ñëw rek ñu woo wax ma. ah ma ni waa kon yàlla baax na nañ ko doxalee noonu. en tout cas maa ngi gërëm doy waar naa la bàyyil bu Barthélemy bi. baax bu ah. baax du ma jox. du dox waaw ah, du ñu jox. ah la ah, jox. Aliou Sow eh, Mouhamed Sagna fi <laughs> <laughs> <laughs> nga yàq foofu bi ko saa foo ci fii laa ko yaakaar. ndawal ko ñor idi ak xëdd ba. fii laa ko yaakaare. c'est pas possible ah. mais nag waa naa am bañ ko woo. kéemtaan la zéro virgule na waar hmm. mais ma nuyuwaale sama benn grand Mbaye Sène. waaw moo ma jox costume bi. Mbaye Sène waaw euh, l'international wala. Euh, Mbaye Sène euh, moom mu ngi ca Italie lay dama ko ñëw rek. mi ngi ah. dëkk Pikine. ah macha allah kon soriwul ak Mbaye boobu. non soriwul na fii ci Ouest Foire. ah maa ngi koy nuyu moom ak. soxnaam bu baax waa kay soriwul la. ah, ah tubaab fakkaar kon defalal passe <laughs> Mbaye seen waaw ku ku am yitte nag. Euh, ci woon ci Pastef bi maa ko fekk mu ngi sol ensemble blouson wu. blouson Diomaye président bi wala yéen war xew bi loolu may mbay coono jeex na <laughs> et félicitations ci euh, nam li yaatu na leer na macha allah. donc mbay seen ak euh, madame seen madame seen maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax di ko gërëm bu baax a baax. Mm. waaw donc mu ngi noonu daal mu ngi noonu. kon ñu joxante waat di daje incha allah fii ak mardi. incha allah installation bi incha allah. la war a xew directement bu soobee Ngoné moo fay dem ca ay Ngoné a waaw jërëjëf Ngoné waaw Ngoné sa liggéey rafet na ci ci ci ci yi ak it waaw macha allah Ngoné daf may rey la euh, oh pop pop di leen siyaar maa ngi gis daal ci benn restaurant euh. ñoom ay Fatima Kidé hmm. ñoom Oulaymane ak sunu xarit ya ma euh, maa leen gis gis maa gis Mamek maa leen gis ah. ñu nekk ci benn restaurant ñoom ñooñu jigéen ñooñu ak Penda Badji ak ñooñu ñu ngi def ay ay yëf daal. waaw ba nga ñëw ñu lijjanti loolu. très bien euh, ci ci fajar ji. waaw ci fajar ji <laughs> fajar kenn kenn mooy bis. maar bi maar bi. bis installation bi xam nga suba la ah. ah, suba kii la. wa waruma dem ci installation bi yow. <laughs> déedéet mun ah. koy jox. buñ paree ñu solo réew mi de waaw baax na fo waroon naa dem artu ko de président Diomaye <laughs> kon baax na. kon baax na boo ma gisul ne xam ne maa nga fa xam naa la yow rek tellement tellement arab tout. merci beaucoup borom 15 minutes ensemble incha allah on aura l'occasion peut-être dimanche prochain. gi yëpp dafa am ah waaw waaw waaw koor gi nag dafa am ah. ay exigence ko waaw waaw kon baax léegi bëccëg bi. Ah. del wut yi fu ñuy wootee parce que tamit. Euh, waaw waaw bari dañ ma koy wax. dañuy bëgg di dugg di dugg. c'est di laaj. Euh, ak jéemal ut. non incha allah dina ci ñëw xam naa nag laaj moom dina xaw a. wala daan toog ko fii. waaw waaw oh, teg caayam oo teg caayam teg tijji kii bi di waxtaan. di waxtaan di waaw yooyu yëpp ay programme dana ñëw incha allah merci beaucoup Sow. jërëjëf ñu koy gërëm di ko sant bu baax gërëb leen aussi yéen doon bàyyi xel fii ci réew mi ak ci bitim réew on se retrouve incha allah mardi comme ni ñu ko waxee dina ñëwaat incha allah ci bëccëg boobu dara du leen ci rëcc ci la nar a xew ci jam ñaajo war a jeexit ca palais de la république laata boobu dañuy ànd ak yéen aussi ci jeexal bi ànd ak Aliou ah Niang depuis Allemagne ci euh, li muy xaar ci prochain gouvernement bi ak i défi yi leen di xaar euh, naka noonu gërëm leen sant leen gërëm aussi Penda ah, Dia mi nekkoon ci réalisation bi.